kat kat kat ay ay ay kat ah ah ah kat ay bu jigéen dafay ay Tarrayanga lambai, tarrayanga jubibo. Ay, bublo may buke. Ay, bublo may buka. Bublo may buka. Eh, itay na rin kita. Tarrayanga lambai, tarrayanga jubibo. Bublo may buka. Ay, ay, ibigay naman. Ah, Sena! Ay, Sena, lino niya ay eh, halo. alors c'est ça Saya gi. c'est que mbay ki koy jàngal li koy ki koy jàngal pas de musu dem ci émission gis de. di lekk di naan sa di naan ataaya di lekk gerte. alors. waaw ayca su ko defee boy sa boy poulet envoyé message. Nen DJ ah moom ne ah nee na moom couteau couteau. ah couteau la nee na moo ne fi am na loo xam ne il faut ñu taxaw seetlu ko. Mhm. ci plateau bi. Mhm. mbay ku koy jàngal paada de danse. moom et puis ay fecc yu fecc yu yu raar. ay bii contre temps maanaam. <laughs> maanaam son bi day dem A moom mu dem Z. te te naa garaaw. Uh-huh. man ak Paz mhm. yaa ngi woon. ñu am fu ñu dem Mbaaw. di fa tourné benn émission ma romb benn buntu kër ci yoon bi ba ñu àndee ci oto bi di dem. ma romb benn buntu rek sonné ko daw. sone daaw ma ne mu ne ma ah ma ne ko bu subaa ma dugal ko studio mu def foo ma def dëgg nga xëy dugal ko ma génne ko mu neex ñëpp kër gu ñu romb sone daaw naan ko tin tin tin maa Paes mu <laughs> d'accord Aïcha alors maintenant mën nañ dugg ci waxtaan bi ah <laughs> parce que nag boo toogee artiste